lan la ñu war a def itam euh, peut-être loo xam ne si beaucoup plus strict ñu xayma ñu loolu euh, pour que ñu euh, jébbal président la république li ñu war a def ci piste. ñu bëri ci ñen la ñu am ci boor yooyu état jaayu leen ko de ña fa dëkk ñoo leen ko jaay yi ci yi ci yi ci yi ci en tout cas ciy liggéey ante yooyu ñu ci bëree dugal nañu xaalis bu takku ci wàllu étude maanaam pour xam lan la ñu war a def loolu la ñu bëgg nag loolu lépp ñu boole ko parce que ñu ko defee tey. maanaam saafara yi warul jur ëllëg ay jàngoro te loolu nag jafe na ci wàllu dëkkuwaay environnement ci wàllu dex géej et cetera jafe na gis ngeen euh, saafara inondation Saint-Louis moo ñu yóbbewoon ba ñu am problème bël bañ fa am ñuy def gën a jox euh, euh, en tout cas àq ak yelleef borom xam-xam yi ci wàllu woowu pour que ñu bañ a en tout cas juum ñeenti fan lañ leen jox pour ñu dellu si ci ñun pour que ni ko sama mag ji waxee avant Euh, avant le prochain conseil des ministres nous nga xam ne président euh, en tout cas Khaladi yi